salaamaaleykum téléspectateurs yu réew mi TV dalee nag jàmm ci li nga xamante ni moom mooy actualité bi ci li nga xamante ni moom moo am ci biir Dakar ginnaaw bi nga xamante ni ay coow am na ci mbiru Ousmane Sonko bi ginnaaw bi nga xamante ni teg nañ ko loxo daal di koy yóbbu nga xamante ni moom mooy section de recherche ngeen gis suñu ginnaaw li nga xamante ni moom mooy place su Auchan nga xamante ni démb ndaw yi dañ ko daal di songu def ay yàq yu bëri bëri bëri yoo xamante ni daanaka kenn mënu ko estimer muy bi nga xamante ni moo nekk fii ci Castor ak yenn yi nga xamante ni ci Dakar Ndakaaru daanaka euh, place yi nga xamante ne lépp dafa laal wàllu France ñi nga xamante ne ñooy ndaw yoon def manifestation démb ci ngoon daal nañ laal yàqu yu bëri euh, bëggoon nañ leen wan nag li nga xamante ne moom mooy image yi waaye euh, ñi nga a mais li nga xamante ne constaté ko ci biir mooy dégâts yi bëri na trop daanaka am na parti yu bëri yoo xamante ndaw yi dañ koo lakk ak ay produits yu bëri yoo xamante yóbbu nañ ko ginnaaw information yi nga xamante ni ngeen ko ci li nga xamante ni moom mooy rajo bi waaye tamit euh, ci yeneen wàll dinañ dem ci yeneen bërëb yi nga xamante ni ay moomeelu France la te ndaw yi def ay euh, yàq-yàq yu bëree bëri bëri euh, en tout cas daal li ngay mën a gis ci li nga xamante ni moom moo am suñu ginnaaw fi mu nekk ni tey Auchan bi nekk fii ci Castor ubbiwul ndax dégâts yi moo bëri yàq-yàqu yu bëri produit yu bëri ñu di koy emporter ci kanam tuuti ñu daal di dem ci yeneen bërëb wan leen li nga xamante ni moom moo fa am ci wàllu yàq yàqu lu ci mel ne station Total yi nekk ci biir Dakar rawatina bi nekk fii ci Castor euh, ci li nga xamante ni andi na ko euh, ci jéeya ginnaaw bi nga xamante ni ndaw yi wane nañ seen maire ci euh, teg loxo bi nga xamante ni teg nañ ko loxo Ousmane Sonko waral démb ay manifestation daal di am ci biir Ndakaaru ngeen topp ñu rek ci li nga xamante ni moom mooy Rewmi TV ngir am actualité yi ak li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu information ci biir Ndakaaru ak biir Sénégal ok voilà ñoo ngi ci eh, ak ñenn ñi nga xamante ne ñoo ngi liggéey fii ci eh, bu Auchan bi nga xamante ne jamono ji eh, daanaka tijjiwul tey ñoom ñu ñëwoon tey yaakaar naa pour liggéey si wala ñu ñëw def si constance yi nga xamante ne moo fi am ci yàqu-yàqu yu bëree bëri waral ñu daal di tëj bërëb bi donc soxna si tur bi naka la yaa si Yacine Seck euh, fi ngay liggéeyee. waa fii la ñuy liggéeyee. waaw tey nga ñëw fekk li nga xamante ni moom mooy euh, Auchan bi ñu daal di koy saccagé euh, yàq fi lu bëri taal fi li nga xamante ni moom mooy ay produits yenn yi ñu daal di koy yóbbu donc yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi liggéey ban jàngat ngeen am ci li nga xamante ni am na fi ci li nga xamante ni moom moo duppee ci coow Ousmane Sonko bi. waaw gis nga ne dañuy sant yàlla jul ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur dëgg la liñ def metti na trop ndaxte tey jii nii ngay daan sa doole amoo lu dul sa yaakaar tey pour ñu ñun jeunes yi waroon nañ am beneen intelligent bu dul lii nii tey te xam ne suñuy rakk ah suñuy frère suñuy sœur ñun ñoo fiy liggéeyee kon waroon nañ mën a comporter neneen lu dul nii yàqaluñu kenn ndaxte peut-être euh, Auchan bi tubaab bi ñoo ko moom mais sénégalais yi ñoo ko gérer ñoo fiy liggéey di si daan seen doole teel a xëy di guddee wàcca pour man waroon nañ mën am beneen esprit bu dul yàqal yi ndaxte ñun lañ yàqal ñun sénégalais yi nga xam ne ñun ñoo fi nekk di daan suñu doolee donte que boobu léegi metti na trop 5 heures du matin ba léegi ñu ngi fii nelaw ñu metti nañu daal metti nañ franchement par nii est-ce que tiitoo leen ci seen wàllu liggéey parce que Auchan bu demee ba bañ bañ lakk ko est-ce que euh, doo leen tiit ne fi mu nekk dina am ay diir bis yoo xamante ne dinañ ko tëj euh, ba liggéey du am fii. waaw metti na trop euh, dëgg la li nga wax dëgg la mais. tamit euh, dañ dañ pare pour liggéey taal pour pour xeex euh, lutte contre le chômage euh, tey mënuñu tëj Auchan munuñu daaneel au Auchan parce que ñun dañu jug pour liggéey juguñu pour yàq nguur xam nañ ne ñun yaaxuñu dañuy liggéey kon peut-être sénégalais yooyu noonu di def loolu noonu dañoo xamul mais ñun pare nañ pour lan pour defaraat suñu Auchan pour daan suñu doole parce que li ñuy defar ni pour ñëpp la. c'est pas que dañuy defar pour yaax mais dañuy defar pour ñëpp pour développer suñu réew waaw ndax sénégalais ñoo fi nekk di liggéey daal kon man gisuma fii loo xamante ne day yaax nañ xoolaat bu baax li def nañ xoolaat bu baax bu baax a baax a baax li ñuy def xam ne que ne que ñun ñu ngi yàqal daal xam nga seen i rakk seen i seen i sœur ñoo fiy liggéeyee nañ xoolaat bu baax li ñuy def Auchan defu leen dara tooñu kenn dañuy liggéey teel a xëy di guddee kon man gisuma lan lañ leen mën a yaaxal ba ñuy def lii. dama leen koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi ñu bàyyi Auchan yi nga xam ne dañ koy yàq te xam ne seeni i frère ak seen i sœur ñun ñoo fiy liggéeyee voilà jërëjëf toog dégg ngeen euh, soxna si li mu wax ci message bi mu envoyé ci euh, ndaw ñi nga xam dañuy dem rek ci benn bërëb wan leen li nga xamante ni moom mooy euh, fay yàqu lu ci mel ne station Total bi aussi nga xamante ni moom wax na ko ay sénégalais ñoom ñooy liggéey ci bërëb yooyu même fekkee sax moomeelu France la mais sénégalais yi ñoo fay liggéey di fa daan seen doole donc voilà yéen ñi nga xamante yéen ñuy suivre seen télévision Rewmi TV ñu dem rek ci benn bërëb wan leen yàq voilà ba léegi ñu nekk ci fi nga xamante ni mooy Castor bokk ci bërëb yi nga xamante ni démb daanaka ndaw yi jaar nañ fi démb ba def fi ay yàqu-yàqu ñu nekk ak benn jeune euh, di ko laaj aussi xalaatam ci li nga xamante ni xew na démb ginnaaw arrestation bi waral ay ndaw daal di euh, song yenn bërëb yu ci mel ni Auchan ak euh, Total donc yow tur bi naka la. waaw Serigne Saliou la ngay wax. Serigne Saliou démb li xew démb je pense que en tant que jeune ban jàngat nga ci am. waaw jàngatuma si am mooy nit ñi xam nañ ni dëkk bi dafa métti nit ñi dañoo sonn élèves yaa ngi jàng seen jàng wóor boo xam dina àggam déet ñu nekk fii bëgg yàq dëkk bi. ku ñu waxantee dëgg ak dëgg bu neexee yàlla rek ñu wax ni Macky Sall liggéeyul dara si dëkk bi wax dëgg fa neex yàlla liggéeyul dara mu ngi ñuy tooñ mu ngi ñuy tooñ mu ngi tooñ mi ngi tooñ mi ngi tooñ Sénégal wax dëgg fa neex yàlla nga so Ousmane Sonko lii ñu ko def nii xam ngeen ni teguwul si yoon am sa doole yor sa nguur koo jàpp tëj ko te barki dem moo njaay ñi ñee fi nekkoon di la xeexal di la xeexal yow nga falu fàtte loolu boo dëgg boo ndee wax bew dëgg lii mooy bew nguur gi moo raw sax nguuru Firawna wax dëgg fa neex yàlla mais fi mu nekk nii est-ce que ndaw ñi war nañoo euh, ne mbiru Sonko moo tax ñuy song lu mel ne ay entreprise yoo xamante ne seen yoon nekkul ci wàllu dossier bi nee du mbiru Sonko dëkk bee métti ñi ñee sonn bu dul dara sax instant bi ñi ñi ñoo ñi ñi xeex ñii xeex du xeexaluñ Sonko seen bopp la ñuy xeexal seen démocratie la ñuy xeexal du Sonko bu reesoon Sonko Sonko rek ci kaso bi lay deewee ñi ñu duñ ko lijjanti mais ñi ñee sonn dëkk bi moom métti ku wax jàpp tëj ku ne yi jàng ñi leen fekk seen biir classe di jàpp di leen yóbbu di leen tëj lii neexul yàlla wax dëgg fa neex yàlla lii neexul. nguur boo amee benn message booy lancé jeunes yi ci euh, wàllu manifestation yu ni mel ak parce que lu nekk mën nañ see fekk ban message lay nekk. waaw bu may lancé mooy léegi lépp loo xamante ne dëkk bi moo ko moom te dañ koy soxla ñu bañ ko yàq waaye nag xeex moom nit dañoo war a xeex parce que nit ñi dañoo war a xeex ngir ngir xeex seen démocratie ngir xeex ndax dëmb ak barki démb seen i maam danoo jàmbaaralante woon tubaab bi xeex ak ñoom ba tey jii ñu am indépendance ñu wëlbatiku am indépendance bëgg moomaat kon dañoo war a xeex ñun ñu fi nekk ba duñ ñu moom bu ëllëgee donc mu nekk benn jeune boo xamante ni fekk nañ ko fii ci Castor mu wax xalaatam euh, ci li nga xamante ni moom moo euh, xew ci euh, réew mi donc moom joxe na message am wax na aussi jafe-jafe yi nga xamante ni la ndaw ñuy dund voilà donc dañuy continuer rek di wër biir Castor bi nga xamante ni dem bokk na point focal ci li nga xamante ni wala manifestation yi yëg na ko ngir li nga xamante ni moom mooy les besoins de Rewmi TV pour suñu ay téléspectateurs jërë ngeen jëf Ah, ba léegi ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu ah, manifestation yi amoon démb te bu am ay yàqu yu bëri yoo xamante ni ah, ay ndaw def nañ ko lu ci mel ne fi nga xamante ne lañ nekk nii muy total ñu nekk ak ki nga xamante ni moo nekk bi nekk fii ci station total bi nekk ci Castor donc soxna si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax tur bi naka la. Marie Thérèse. donc démb li nga xamante ni moom mooy seen station bi ay ndaw daal di koy songu yàq ci lu bëree bëri bari donc ban heure la la ndaw ñu def li nga xamante ni moom mooy jëf jooju. voilà ñoom ñu ngi ñëw euh, aux alentours de 15 heures 15 heures 16 heures euh, côté fenêtre yi moom c'était sécurisé mais au niveau des portes amuloon grille donc comme c'était il y avait beaucoup de monde donc dañoo ñëw ak ay xeer ay affaire yooyu noonu donc ñu saccagé porte d'entrée bi pour mun a am accès à la boutique voilà. mu ne am ci ci ci juste estimation yàqu-yàqu yi euh, fala tool toll. non estimation pour l'instant moom xamaguñ ko parce que c'est très récent mais xam nañ ne que daal pompe yi yëpp. yàkk nañ ko euh, frigo yi toj nañ ko porte yëpp toj nañ ko présentoir yi ils ont amené aussi beaucoup de produits euh, unité centrale yi ordinateur yi ñoom daal yóbbu nañ lépp voilà yóbbu nañ lépp vraiment. mais au moins am ngeen am ngeen euh, loo leen jëlee gum ngir mën a identifier yéen yéen jën ñoo def mbir yooyu. Oh, waaw waaw sûrement on pourra les identifier am nañ ay caméras de surveillance affaire yooyu après dinañ bàyyi li des rek total def def liggéeyam incha allah. yaa ngi ñaaw li nga xamante ne ndaw yi def nañ ko song yenn euh, bërëb yi nga xamante ne dañoo jàpp ne moomeelu France voilà c'est très très déplorable parce que au niveau des stations Total comme ci Auchan yi du japonais yi ñoo fay liggéey du ay chinois ñoo fay liggéey ay sénégalais ci boppam ñoo fay liggéey ñun ñii ñoo fiy liggéey te ñun ay doomu réew mi lañu fii lañu juddoo ah fii lañu defee lépp donc euh, je pense que euh, li ñu def moom vraiment rafetul man ñaawlu naa ko ñaawlu naa ko donc vraiment je les appelle à beaucoup plus de de calme de sérénité ah et ñu xam ne que aussi. Euh, méthode bi ñu utiliser nii du moom mooy régler ñoom seen bëgg-bëgg. voilà jërëjëf donc mu nekkoon ki nga xamante ni moo nekk euh, le responsable euh, fi nga xamante ni moom mooy euh, station Total bi nekk fii ci Castor donc dégg ngeen li mu wax message bi benn la mooy nañu ànd ak seen xel ci li nga xamante ni moo am ci mbir yi seen ay doom doomu Sénégal ñuy liggéey ci entreprise yooyu donc bu yàqee ñoom lay njàqal donc ñu nekkoon fi nga xamante ni mooy Castor pour les besoins de Rewmi TV ci li nga xamante ni moo amoon démb dëppee ci affrontement yi amoon ci mbir Ousmane Sonko jërë ngeen jëf